ba tey mbokk yi ñoo ngi toog ak euh, Serigne Ibrahima jóom mi nga xam ne moom mooy coordinateur bi nga xam ne lépp loo xam ne aju woon na ci wàllu cant gi mooy ki nga xamante nii moom lañ ko tegoon ci loxoom tey yaakaar naa ñu saytu ko ba ñu agsi ci njeexitalu programme bi euh, sëñ Ibrahima en tant que coordinateur kon lan ngay wax ak mbokk yi nga xam ne yéen a bokk ansaaru diini te mbokk yi nekk ci Brescia yëpp tey ñëw wuy si leen ànd ak yéen sant gi nga xam ne moom ngeen doon def fii tey ci Lonisane muy samedi fanweeri fan ci weeru mars 2019. ñoo ngi lay nuyu di la siyaare xanaa am mbégte rek am mbégte lool mbégte moo xam ne ah mun ñu koo lam ba daj ko mun ñu koo xool ba séen ko ndax kawe na lool moo ngi sant bu baax a baax sant nañ mbokk yi nga xam ne yëpp. ñëw nañ wuy suñu jóge ci eh, ay gox yu fasanti ko ñoo ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di ñaan seen tànki dem ak seen tànki dikk yëpp yàlla nag suñu borom def ay xéewal sotti ko seen kaw am nañ mbégte moo xam daal xam nañ fu mu tàmbale waaye xamuñu fu mu yem ah waa dëkk bi tamit wax dëgg yàlla yombalal ñu lool liggéey bi ndax ñoom ñëpp dañuy jóg ànd ak ñun ci liggéey bi ah di góor di jigéen di mag di ndaw bàyyiwuñu kenn ñëpp nag ñëpp ñëpp ñoo ñëw jàppale ñu ah, waa ànd ñu ànteeg tamit suñu station bi nga xam ne moo coordonné waa dëkk bi yëpp ànd ci tamit ak sunu euh, mbokk yi waa kër moom Alaaji Malick ànd ceeg daayira soxna jaaratullahi ànd ceeg ñëpp ñi nga xam ne daal ah ñoo nekk ci biir dëkk bi waaw ñoom nag ah, wax dëgg yàlla ah, am nañ mbégte am nañ mbégte moo xam ne mënuñu ko sax a wax rawatina nag mbokk yi ñu wuy si amul seen pay waaye Serigne Touba mi nga xam moom ak fay ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla nañu ko yàlla na leen fay mbi yoon nag doon ñetti yoon yoo xam ne amal nañ ko wax dëgg yàlla suñu borom tam di defal tawféex xanaa di ñaan rek yàlla nañ daje ngërëmul sëriñ bi ñu def ko at yu bare bare bare bare bare bare bare ah, ñoo ngi bég bu baax ci eh, li nga xam ne nii am dox na fi ci wàllu xasida li nga xam waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ni teew na fi comme ni ko waxee woon dañoo xam ne buñ limee du ñu juum waaye duñ matal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati Serigne Ibrahima Diop mi nga xam ne moom mooy coordinateur daayira Ansaarul Xadim ñu dénkoon ko lépp loo xam ne mi ngi aju ci wàllu cant gi euh, kon ñu bàyyi mbokk yi rek ñu dégluwaat xasida ba ci kanam incha allah